suul gaz du ko tere xeeñ ubil bés bi la jour nañu ginnaaw pétrole ba day waaw gaz bi dina génn dee alhamdulilah dama ne la ça gazera d'ici weeru uh-huh, waaw parce que nag ñun waay Austin mooy président directeur général bu BP ñoom daal seen yéene daal loolu la ñu envisagé gis nga jàppal ni gaz bu njëkk bi day fi ak ñetti weer jàpp ñeenti weer ah dana génn alhamdulilah waa ji nag ba ñu defee ay test day ah danañ war a mën a commencé na di taxawal ay cargaison ngan di maamu bato conteneur kay yéene kaa gi te gis nga tool woowee waaw boo ko xaymaa lu tolloog juróom-ñeenti téeméer ci ay milliards ci mètre cube aw oh léegi dootu ñàkkati courant de wàllum courant boobee Sénélec ak West d'Italie laaste Amadou Ly ak Kile daf leen a porté plainte de mar d'Italie yéeni kaa gi moom Amadou Ly ak Kile moomee waaw mbaa du taxawaayu banque mondiale fi mu nekk nii la taxaw wala banque mondiale ca boppam moo nekk ca ginnaaw waajax waaw waaw parce que gis nga ak Kile boo Amadou Ly mi lee waaw daa ñàkkoon ab contrat boo xam ne day cent quatre-vingt-sept milliards digganteem ak la woon waaw ca compteur intelligent ya réew ma yëngu woon lool waaye fi mu nekk nii nag réew démb lool te conseil des ministres ba ubbil libération yi nañu docteur Cheikh Dieng bi waaw mooy directeur général bu njëkk bu joomaay fay fal ba pare wàcceewaat ko laa la wax Walfadjri ne dàqub directeur général u ONAS gi lée xam nga lan moo cay xëy def erreur u casting te erreur nag bu xasee ba am rek am na erreur la erreur la ma ne la loolu lay xeeñ de erreur casting ci boppam kon lay xeeñ te ginnaaw nag bañ fa jëlee Cheikh Dieng ah mbir mi daal li muy xeeñ ak di ko nuru tamit bokk na ca wàllum humiliation lañ ko fal ak kañ lañ ko fi jëlee te li leer ba leer njortu nañ ko de ne Cheikh Dieye mi lée mën naa génn nag ci coalition ba aha waaw waaw parce que moom nag benn instant ne xoowuloo ak waa Diomaye président de déet waay xanaa xamoon ne Cheikh Dieye dañ koo njëkk a jox ONAS bi mu bañ la gars yi dafi pexe ba ko ko laa la wax est-ce que nekkul ne mer googee lañ ko dencal yoor yoor jubal gee ko fa jëlee de jub jubal jubanti gi ma la moo fa jëlee docteur Cheikh Dieye boobee ca ONAS waaw xam nga lan la Cheikh Dieye doon def ma nga woon ca terrain ba moom nag homme de terrain la de Cheikh Dieye dama ne la woon ma nga Touba doon nag ubbi maanaam antenne régionale ONAS ba ba nommé na fa sax démb benn chef de service ay waay Cheikh Dieye mi la day mayuñ ko nag mayuñu ko ko de fu mu defee audit ba ginnaaw ba fa Mamour Diallo jógee audit ba lañ ko sandoon waaw waaye dama ne la audit boobee du ko fa fekk laaste xam nga Cheikh Dieye mi le waaw la ñuy wax ne daal moo tax bañ jëlee ko ca place am boobee mooy yorinu biir ne Cheikh Dieye xaritam mbokk comme ak waa Jidde Caaroy Kaw waaye digganteem tamit ak waa coalition bi lee woon neex de déedéet dama ne la Cheikh Dieng biñ koy jox ONAS moom bëggul woon gaayee def pexe ba jox ko moo taxit mi yëngu na libération yéene kaa tamit yëngu na waaw waaw parce que de la police judiciaire et de la sécurité publique commissaire Mamadou Lamine Niang ak Njara Sène waaw ña nga au commande de dénk nañ leen ko de les ko yéene kaa orkitis mi xeex wàllum sinebar dorog groupement mobile d'intervention ak CENTIF ak DAF fa ñuy defaree carte d'identité waaw commissaire ya fa nekkoon jëlee nañ leen fa de indi nañ ñu bees ya ca yàlla commissaire Sanu Diouf ma nga woon ca bitim réew waaw daal dinañ koy indiwaat ci réew mi day président Diomaye Faye moom la jox nag démb ca conseil des ministres ba direction de la formation de la police nationale ñëf critique yéene kaay jëlal ma consul ak vice consul waaw ña nga xam ni politique a taxoon ñu kay ci biir diplomatie sénégalaise bi ñu leen di bale le démaquillage de la diplomatie sénégalaise yéen a kaay Pape Sarr bi ne dama ne la gis nga diplomate yooyu nga xam ne kon nañoo jege woon nguuru Macky Sall gi lool lool lu mel ni Amadou Diallo alias Diallo boobee nekk rek ko Abdoulaye Daouda Diallo day consul Sénégal ba nekk ca Paris depuis waaw gars yi dàq leen de mar d' Italie ña jege nguuru Macky Sall gi yëpp gars yi dàq nañ leen laa la wax waaw waaw te gis wa waaw ngir mën a jàkkaarloo nag ak jafe-jafe ak fonctionnement personnel bi ak yooyu waaye ministre affaires étrangères tey Yassine Fall daa bloqué koppar ga laa wax en attendant consul si kon ñu nommé leen tey yeneen dootul yàggati dara dana am 24 heures yéene kaay ne dama ne gis nga waa palais bi Diomaye Faye mi le Ousmane Sonko mi le ah ña nga ca weeru août jàpp kon septembre 2024 ah waaw waaw dama ne la dossier yu ngand yi nga xam ne nii maanaam ñoo nekk ci rigol yi Sénégal gi lée ñu jëlee ko ci jafe-jafe yi ak guuta a ne dafa jot de waaye problème état civil ba dakk garab yeeg yàq àll beeg ñi ñu am kon ay dëkkuwaay waaye ñi nga xam ne tam ca Casamance dañoo génnoon ca seeni village seeni dëkkuwaay dem nees def bañ dellu siwaat nguur ga ca la nekk gi ci wàllum talibeeg yooyee ah dama ne la infrastructure yi nga xam ne ñoo nekk ci biir géej gi lée ak boor yi nees def ba nit ñi kon di naan ndox mu de yemuñ olympique de la jeunesse yi ci Sénégal 2026 gis nga waaw am na problème de ubil libération yéen i kaay la indi jafe-jafe ba day mooy ressources yi rek yi war a waajal kon JOJ 2026 yooyee ci Ndakaaru njaay jël jóob waaye blocage bi naroon a am day dañ koo sauvé de parce que waa CIO e dañ doon sàkku nag di demander ci comité d'organisation GOE recrutement benn cabinet d'assistance nga xam ne nag mooy yor wàllum organisation ak yorinu xaalis ba comptable lu ñu bañ kon marché ba waaye comité d'organisation juge yooyee waaw daal di bind kon ARCOP ngir mu arbitré balaa blocage ak di am ci organisation juge Dakar 2026 yooyee di am gannaaw ko la waa ARCOP gi lee daal di jox dëkk kon DCMP waaye daal di jox nag kon comité d'organisation bi lee balaa image su kon di yàqu ca bitim réew laast gis nga accident yu bëri xam ne ñoom ñooy am ci kaw tali bi tali bi lée lii daal naxari na Ousmane Sonko day li ko naxariwaat bokk na ci wàllum communication gouvernement bi lée mbir mi niñ koy doxalee neexu ko de ubbil Walf Fadjri yéeni kaay Siri Lamine Niass gi ne Sonko insiste sur la communication di gouvernement aa waaw waaw dama ne la premier ministre bi day ca conseil des ministres ba waaw daal di nay fàttali daal ne farata la ñu garantir ci ab communication gouvernementale bi lée bu jaar yoon daal une communication gouvernementale cohérente information yoo xam ne yu wóor te dëggu crédible jëmale ko ci askan wi acte politique bi nga xam ne moom le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi lée daal di teg lii la Ousmane Sonko bëgg ministre yi def wàllum communication koo gaay critique yéene kaay nee na réseaux sociaux yi diggante influenceur ak lanceur d'alerte waaw mercenaires yoo xam ne kon ci kàcc kàcc gi la ne nekk clic gi def lu leen neex te dara du leen ca fekk laa la wax kàddu yi nga xam ne premier ministre bi daf koo yëkkati ni lée ne farata la ngir ñu jubbanti nag média yi média sociaux yi waaw jur na kon coow lu rëy fii ci nañ réew nañu ñàkk nañ dégg insolence gi tërani goo xam ne imposé ko askan wi lée léegi daal daanaka ci kaw gàttal kenn rëccatul kenn rëccatul ci wax ju ñaaw jeeg saagay laa la wax 24 heures yéene kaa ne lancé na ka ni saaxo day waaw dama ne la dafa porté plainte kon kii di Adama Gaye journaliste aha ne waaja da koo waxal loo xam ni amul source aane élhage que day responsable APR la ñu ngi koy wër de aha waaw waaw waaw ci wàllum détournement wu crédit yi nga xam ne ko dañ koo jaglele woon crédit mutuel du Sénégal ca FONGIP mar d' Italie mandat d'arrêt international lañ ko dóor am na ñeent ca ñoom ñoo xam ne day caabi féete na leen ginnaaw balaa ñoo tëjaate kaso nañuy xool bam leer parce que les éco yéene kaay nee na ma kii ñeenti atu yàlla la def ci biir kaso bi lée ñu mujj koo setal ay waa gile ay waay gile Aline Badara Koli day moo taxit bind na leetar plainte de koo tëjoon ci kaso bi lée ndax coowal 238 kilos drogue yu ñu jàppoon kon ca port ay waay jile te loolu amul ñeenti at mu ko ci kaso bi ñu xëy daal di koy setal le mandat yéene kaay ne waayow tukki yu bëri yi lée président Diomaye di def ci France ah mouvement frappe France dégage waaye ñoom léegi lan lañ dese lu fa des que reste-t-il du mouvement frappe France dégage ah doy na waar li doy waar kay bés bi la jour nee ndekete cinquante kilos bii ñuy wax ci ceeb beeg suukar si ndekete matu ko ah cinquante kilos bi dama ne matu ko frotte la benn boutique nee na gis nga saaku ceeb yii ak suukar yii deful cinquante bëtu tey de ak ay yàgg benn grossiste nee na ñoom daal ay machine la yor di ñëw ay saako ci seen i biir magasin dañuy laal ñetti kilo jàpp juróomi kilo laa lay wax ni li ci ceeb suukar si maa la wax li te gis nga suñu autorité yi lée impuissant mënuñ ci dara ba dara booloo jeex la wax te nag war nañoo dakkal tappale di wàllum fraude gii en bas de moom président Diomaye waaw jub jubal jubanti la wax yor yor yéene kaa ne waaye Ba mi moom ah candidat de gis ngeen Amadou Ba mii ak ka mën double jeu waaye déet waay journal Serigne Saliou Gueye bi ne dama ne day matt di ëf il tempère mais sauf ses lieutenants dégg nga ña ànd ak moom kay ma ngi di cuq ña nga de waaye moom moom danaa nonooy te xoolal Bassirou Diomaye Diakhar Faye day ba muy campagne waaw bëgg Sénégalais ko daa def déclaration de patrimoine am laa la wax te gis nga ci jamono joojee Ba ak kopparam ah daa lànk ndaare ba tëdd ci def dem naa ca xaalis promoteur yi tamit xaalis bi ñuy déclaré ca CNG dama ne la gis nga arène bi lamb ji lée waaw la ca nekk ci ay mbóot kenn xamul nu mu toll laa la wax liñ leen di dagg dee moom la kenn xamul fu mu jëm kenn kenn kenn kenn ken yéene kaa gi ne kan mooy nax kan moo jaral laajte de <laughs> waaye luñ ko war a laajte laajte laajte laajte laajte suul gaz du tere xeeñ te dawi taxul aare parce que Sonko jomaay te jomaay mooy Sonko boo paree ma ne la alaaji